asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi jotaat nañ ndigal ci sëriñ cheikh ahmadou mbàkke xalifa cheikh saalihu mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér di ñaanal sëriñ touba cheikh mahamadul muntaxa xalisaal kullu murit yal na ko sun borom may foon mu gudd lool wa ànd ak gi yaram ndigal li nag dafa jëm ci dongoy tarbiye yi dongoy tarbiye yi nga xam ne ñoo mas a jaar ci loxoy sëriñ cheikh moom sëriñ saalihu ak fuñ mën a ne képp koo xam ne mas ngaa jaar ci daara yi sëriñ cheikh bokk nga nga xam ne eh, yaa ko tax a jóg woote bi nag lu mu doon mooy mbadd lim gerte muy bàcc ak jëri ak roñ ngooñ ma ak la aju loolu nag moo tax ñu toog fii ci kër Serigne Salihu Mbacke Xaadimu Rasul gi ci jumaa ji feggoo ak Baye Cheikh Dia waaye feggoo ak Serigne Modou Diop ak Serigne Cheikh Sakho ñu fas yéene yëkkati ay kàddu jëme ko ci liggéey boobu nga xam ne Serigne bi jox na leen ko ca daaree Touba Darou Salaam Maodo Mourid mu war a doon le 26 incha allahu rabbi ñu bàyyee kàddu gi ak Baye Cheikh Baye Cheikh nga xam ne moo koy ubbi aouzu billahi di nuyu sëriñ bi mm. ci turu sëriñ bi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mii ci tool sëriñ Saliou bii nu ànd moom nu ñaan saa boroom eh, xéewalal ko yaram wér gi yaram ak yàgg ba mu matal yëpp lépp li eh, naal sëriñ Saliou yëpp mu matal ko ba matal ay naalam tan ànd kook moom te daje cee ngërëmal sëriñ Touba. Ah, suñuy kàddu du ci bari donge yi donge yi ni sëñ Cheikh ni sëñ Fallou Galas waxe eh, donge yi jaaroon ci daari sëñ Cheikh sëñ Saliou ñoom la jox ndigal ci bàddali bii bàddali bii yaatu na Xelkom a ngi ci Lagana ngi ci Touba Darou Salaam a ngi ci waaye nag fii di Touba Darou Salaam ñii ca féete woon ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ko war a baddali ñoo ñoo fi ñi daa doo ngay jaaroon ci daari sëñ Cheikh yi ñoo ko war a baddali ak ak ñëpp ak keneen kuñ ci àndal nag kon ci gàttal rek maa ngi jox ma ma sëñ Mat Diop mi kàddu gi. mu wax leen ni ni ñu ko bëggee bisimilah barke borom Tuubaa waaw ñi ngi woote ci turu dongay tarbiye yëpp te ka nekk ca bopp ba di jëwriñ ji Serigne Abdou Ndiaye di leen xamal ni bàddali bi dañ koy tàmbalee daaray lagan daaray xelkom daaray tubaa Daaru Salaam ñun nag dañ farale banqaas bi nga xam ni moom mooy tubaa Daaru Salaam du ma layal nag Touba Daaru Salaam waaye damay layal liggéeyu sëriñ dafa dafa dëppoo ak euh, bayitu sëriñ bi muy wax bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiya ndax koo xam ni saa su ne mi ngi woo murit di leen jëme ci liggéeyal sëriñ kooku mbiram mm, doo ko utal ab dayoo da nga ci euh, wax la nga xam rek ci biir nag euh, Touba Daaru Salaam googu nga xam ne fa lañ ñu féetale ñi ngi ciy woo mbokki jullit yëpp mbokki taalibi yëpp ak fu ci waaye mënti nekk foo mënti féete di leen xamal ni foofa nako ko sëriñ bi waxee woon dafa nekk ci xur wi waaye ci tool bi la bokk am na nag ñu xaw a réere mbir tuuti ndax dañoo jàpp ni dafa sori waaye soriwul am na mbokk yu may jokal ñu ne ma ndax mooy daara ji ñu wax ne ci wetu Tamba la nekk daara ji boo rëccee xel kom ab bu gàtt rek bu dee soob na suñ borom nga egg ci mel ni lu ruxee woon ndax amul yoon waaye sëriñ bi defal ko aw yoon wu tàlli ndax boo jógee Touba ba ba ngay egg xel kom tali la tali bu ñuul boo jógee xel kom ba ba ngay dugg biir daara ja tali bu xonq la boo xam ni tali boo xam ne bu ci oto di jaar mën naa daw ba cent dix à loolu du tali bu naqari loolu dafa doon umpale euh, bi ab donga buy jóg moom mooy kuy jóg ku nekk na nga loo def ndoxum naan moo xam looy takk ci sa ndigg la moo xam looy looy wékku la ndax liggéey bi mm, lépp fa lii sonal nit ki rek mooy dugg ci biir waar yi ba yàgg nga mat di xaar lu la indil am ndox mooy bu kon booy jóg def euh, yoral loo def ndox loolu dina tax bu la la luy joxe am ndox rombee nga ca caa dolliwaat la ca des nag dañuy jox suñu jëwrin sëñ Cheikh Sakho mu jokkoo ak bokki dëkkandoo ya nga xam ne ña nga ca tund wa jërë ngeen jëfati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi di jokk nuyoo bi ci ñii ñu jiitu muy Baye Cheikh di sof ab suñu nuyoo ci nuyoom di nuyu mbokki tundu Bambougou yëpp ak li ko wër ak mboolem réew mi yëpp ni ko sëñ Modou Diop waxee mooy mbàccum gerte la jëri ko dajale ko def gerte gi ab jal def ngooñ mi ab jal loolu nag du liggéey bu ndaw liggéey la boo xamante ni yaatu na réew ma ñëpp xaj nañ ci ba tax na bàyyiwuñu kenn ginnaaw bawal gi yëpp ñu ngi leen ciy woo di ci woo waa Touba di ci woo waa Thiès waa Louga waa kawlax waa Xabaan waa tund Saalum wi yëpp yëpp Bambuk ak euh, tundu Ndukkumaan wi di ci bokk woo itam mbokk yi nga xam ne ñoo sësaloo ca mbokki daara yi dëkk yi sës ca daara ja nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoo bokk euh, rawat na suñ bokki dong ya nga xam ne dañoo bokk pas-pas bokk lépp muy waa kër sëñ Mamor Dendey daaray sëñ Mamor daaray sëñ Cheikh Bintu daaray sëñ Abdou Samad Si booleeg waa Condax waa Midina Cekkeen woo waa Taïf suñ bokki donge yi fa nekkoon yëpp ak Touba Cekkeen di woo waa Caxaj waa Ribo di woo waa Bokki Joor di woo waa Afe kër sëñ Cheikh Ñang Afe Caaneen waa Kunkung kër sëñ Abdou Salaam waa Ngé Touba di woo mboolem rek di tund wala wër daara ji lépp bayuñ kenn rawatina nag biir Touba Darou Salaam di ci woo waa kër Baye Cheikh Ndaw ak ak ak waa Cilla ak ñi dëkkandool ñëpp bàyyiwuñ kenn ak bàyyi si ak ndaw ñoom ñee ñoom ñëpp rek ñi ngi leen koy ñi ngi leen ciy woo di woo mboolem ku jege daara ji ñi ngi la ciy woo nga ñëw jàppale ci liggéey ba la ñaar fukki fan ak juróom-benn lañ ko waxee ci weeru tubaab dëppoo ak euh, bisub ajuma ñu tàmbali liggéey bi ci gaaw maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di wax suñ mbokki donga yi nga xam ñoo nekk ci biir Touba Darou Salam ak Darou Tansil ñu soññal ñu waa réew ma yëpp foo xamante ni suñu tànk mënu faa ak yéen seeni ndaw wala seen communication na àgg ca ñëpp ñu yëgal ko ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñu fenn ñi ngi woo ñëpp di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ni ko sëñ Mat Joob waxee nag Touba Darou Salaam moom boo jógee Touba li la yóbbu fa daara jeyam yóbbu na la euh, bo bo fa ngay jeexale xel koom yóbbuwaat na la Touba Darou Salaam daar Touba Darou Salaam soriwul mi ngi ci ginnaaw Daaru Minam Saalum boo ko weesoo weesu koñub doli ba daanaka àgg nga kon day mel ni daa làqu waaye amul am na yoon léegi bu fekkee dangaa ngaa jóge wetu euh, Koungheul geetim ab ranran ngay ñëw ba Taïf diggante Taïf ak daara bu gàtt nga ñëw wetu jolof koy tim yu yaatu la am ngir ñëw fa kon ñi woo ñëpp di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ Mouhamadou Diop jërëjëf Baye Cheikh Dia ak sëriñ Cheikh Sakho kon mbokk yi woote baa ngi noonu ñoom dongo yi nag ñu àndandoo di soññi seen kilifa yi nga xam ne jaaroon nañ ci daara ji di seen doomi sëriñ ak seen bokki taalibe Abo Mbacke moom Serigne Modou Habib Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Modou Habib Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Modou Habib Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Moustapha Caytu Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Bassirou moom Serigne Falilou Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Bousobe Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Bousobe Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Bousobe sëriñ Mahmoudan Mbacke moom sëriñ bu soobe ak sëriñ Abdoulahad Mbacke moom sëriñ bu soobe di ci soññ itam sëriñ Xabbaan Mbacke ñaaxar sëriñ Moustapha Mbacke ñaaxar sëriñ Jili Mbacke Guube sëriñ Salihu Mbacke Guube sëriñ Fallu Bayu Mbeen sëriñ Sidi Boussa Kend sëriñ Abdou Boussa noddukat sëriñ Salihu Mbacke moom sëriñ Modou Mbacke caytu sëriñ Moustapha Abdou Ummi di ci soññ sëriñ Galas Mbacke moom sëriñ Maa Ibra sëriñ Jili Mbacke Penda sëriñ Modou faal Baye Fall sëriñ Moustapha Fall sëriñ Cheikh Ndigal Fall ak Serigne Mbacke Fall di ci soñ itam Serigne Modou Fall moom Serigne Cheikhouna Fall Serigne Maam Cheikh Fall Mbawor Serigne Bada Fall Mbawor Serigne naal Fall Mbawor Serigne Sidi Fall moom Serigne Dame Fall. Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Ibra Njurul Serigne Cheikh mbake moom Serigne Modou Fati Xari Serigne Jili Mbacke moom Serigne mo Cheikh Fati Xari seriñ Khadim Mbacke moom Serigne Cheikh Fati Xari Serigne Dame sek Taqe. sëriñ maam Cheikh Lo moom sëriñ Lamine Lo sëriñ Mourtala Lo moom sëriñ Lamine Lo sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdoulahad moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Bassirou sëriñ Abibou moom sëriñ Bassirou Fatixari sëriñ Galas Mbacke moom sëriñ Ba Cheikh Baara Matiley sëriñ Cheikh Mbacke Coobe sëriñ Moustapha Baara moom sëriñ Mour Boussa Dieng sëriñ Galas mbake Baara sëriñ Mbacke Baara sëriñ Mbacke Naar sëriñ Abdou Ummi moom sëriñ Abdoulahad mbake sëriñ Saalihu moom Serigne Amsatu Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad Serigne Saalihu moom Serigne Seexuna moom Serigne Abdoul Ahad Serigne Saalihu moom Serigne Daam Atta Serigne Seexuna moom Serigne Basiru moom Serigne Saalihu di ci soñu Serigne Saalihu Jaxate Mujtaba Baye Abdoul Ahad Mambuso Serigne Seexuna moom Serigne Basiru Roqeya Serigne Basiru Daaru Rahman Serigne Yadaali Daaru Rahman Serigne Sidi Mbacke Njerne Serigne Sidi Dieng Serigne Ibra Dieng Serigne Mbaye Dieng Ndiir Serigne Sidi jenn moom Serigne Abdou jenn Dieng di ci sëriñ Serigne Fallou jiite mbooro Serigne Fallou Jéti Serigne Fallou Diouf te Jéti Mboro di ci soññi itam bokki tundu Touba Darou Salaam yëpp e, ci njiitul e, ki nga xamante ne bii moo njëkk a jël kàddu de Baye Cheikh Dia ak mbokki dongaam yi mu àndal yëpp ñi ngi soññee ci turu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké liggéey ba nga xam ne moo am ca daara yi Touba Darou Salaam muy bàcc gerte. ak jëri ko ak dajale ngooñ ma ak lépp niñ ko sant seen bokki donga yi nga xam ne ñoo nekk xalkom nekk nekk lagan ñi ngi ñaan nag lépp loo xam ne Serigne Touba dana ko fay ci liggéey yàlla dana ko fay ci ku liggéeyal Serigne Touba képp ku ñëw Daaru Salaam yàlla na la yàlla fay loola di leen tàllal loxo nag seen bokki donga yëpp nag di ñaan suñu borom mu may ni ñu àgg ci ci jàmm te weesu ko ci jàmm te lépp luñ ci jëlee yàlla ko yàlla def muy yàggug Serigne Cheikh moom Serigne Saliou jamono ak kilifaam yi mu àndal yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu